lislaam waaye danañ jox itam bind ci taxawaay ak yitte ji nga xam ne képp ku ko bëgg sam réew ak saw askan war nga ko am ndax jiyaat ju réy la ji nga xam ne maam borom Tuuba doon na ko def ci biir yoonu géej gi màndargaal na taxawaayu sëriñ bi ci wàll yi mu wax léegi waaye li ko ci yàlla fayee itam war na soññ ñëpp kon nag jërëjëf Sëriñ Tuuba waaye jaaraama njaboot gi ko wuutu gannaawam sàmmal ko liggéey bi bu mu egsi ci yéen ngeen ànd yor ko tey yoreen bu rafet sëriñ bi li ko yàlla may ci weeru safar bi ba tax bu weer bi teroo ba bii di egsi fépp fu taalibe nekk mi ngi koy màggal kon ñoo ngi jaajëfal mbokki taalibe yépp ci seen taxawaay ci sant gi ñuy santale sëriñ Touba sëriñ bi ñoo ngi leen di jaale mbokki taalibe yi nga xam ne yi yéene woon yëgsi ci bés bi te yàlla def yëgsi wuñu muy dogalu yàlla lii firndeel taxawaayu taalibe yi mooy jàngat bi nga xam ne bii comité d'organisation bi def na ko bu yàggul rendre ko public ñu xayma li màggalu Tuubaa di indi ci koomu réew mi mu toll ñaari téeméer ak juróom fukki junniy milliards ci koomu Sénégal loolu nag muy wàll bu am solo ci li ñuy wax produit intérieur brut bi jàngat boobu dafay wane yokkute gu am solo at mu ne waaye di feeñal ay bunt yoo xam ne yi secteur privé Sénégal war na ko mën a exploiter ba Touba du doon rek fu ñuy consommer waaye nekk tamit foo xam ne fii danañ ci produire lu bari loo xam ne lii day nekk soxla ci bésu bi ci màggal gi feeñal tamit gunge wala dabu bu secteur privé war a def ci dëkk bi sëriñ bi 2012 bi président Macky ñëwee ziar la gannaaw bi nga ko tegee ci bopp réew mi danga ko diggaloon mu jàppale baykat yi te dimbale néew ji doole yi lim limu fi def gannaaw jataay booba ba néega nii du xaj ci jataay bi waaye nga may ma ma wax ci rek ñetti tomb ba ca njëkk ñëwoon nga ko mu dimbali neew ji doole ji bu mu fi toogee ba léegi teg na fi lu ñuy wax programme de bourse familiale 2013 ba 2017 séddale na néew ji doole ji téeméeri milliards ak fukk ak juróom budget 2018 mu natt ñeen fukki milliard nar ko séddale ñeenti téeméeri njaboot ci réew mi ci wàllu wér-gi-yaram xale yi tuut tànk yi ba tollu ci juróomi at danañ faju te duñu fay mag ñi naka noonu boole wuñ ci xeetu jàngoro yu bari yoo xam ne ku ku ci yàlla nattoo da nga faju te doo fay sëriñ bi ci wàllu mbay 2012 ba néga ni amul benn gàncax gu ñuy bay ci réew mi bu yokkul dama ci jël exemple ci gerte gi nga xam ne gii moo ci liñ koy bay ci réew mi ëpp nit ñu koy occupé ëpp su sumu su koy su muy occupé at mu nekk président Macky Sall dana ci def gën ngaa néew ñaar fukki milliards pour dimbale mbay mi te loolu bokkut ak machine yi nga xam ne yi kenn ku nekk gis na ko ci réew mi ñu ngi ko séddale bi muy ñëw ci réew mi li ñu récolté woon ci mbay toll na ci juróomi téeméeri millions wu tonne ak lu teg tuuti deux mille dix huit bii ak peut-être at yi ko jiitu ful nañ loolu lu ëpp ñaari yoon kon ren ñi ngay xaar lu ëpp million ci tonu gerte te nag boobu ba léegi njëgu gerte wàccul baykat yi bàyyi na loolu ñu daan wooye mbapat amatu fi te bon MP e également jóge na fi li jëm ci dëkk bi président Macky Sall mi ngi xiir gouvernement mu liggéey yu jëm ci yoon wi wàllu yoon wàllu tali wàllu assainissement ndox mi ak wàllu courant ginnaaw Ila Touba bi nga xam ne Serigne Sidi Maxtaar Mbacké moo tegoon xeer wi xeer wu njëkk wi ci màggal gi ubbi nañ benn wàll gi te bu soobee yàlla màggalu déwén dana fekk loolu pare taalibe yi jógee ndakaaru yi jóge Thiès yi jóge mbuur Bambey nga xam ne xayma bi ma tudd léegi wane na ne téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróomi foofu la ñu jógee danañ am yoon wu ñu jaar te mën a ci jàmm sëriñ bi ci wàllu ndox li nguur gi def bi fi président Macky sal toogee ba léegi ci biir Touba dem na ñaari milliards ak juróom-ñaari téeméeri million ci investissement te loolu bokkut ak dara li nga xam ne li daf koy fay ngir forage yi leen di may ndox di tàkk ñaar fukk juróom benn forage ay milliards la at mu nekk loolu lépp nag terewul ñu gis ay jafe-jafe ndox ci yenn quartier yi yi ci tuubaa ci màggal gi gouvernement bi dana teel a jëlaat ay matuwaay waxtaan ci ak kuréel gi nga xam ne gi mooy saytu mbiri ndox te sëriñ bi dénkoon ko ko pour que ñu mën a indi solution définitive ci jafe-jafey ndox ci Touba rawatina ci bisu màggal gi sëriñ bi ci wàllu assainissement gouvernement bi dugal na fi 2012 ba léegi ni lu mat juróom-ñeenti milliards rax ci dolli président Macky jëlaat Program spécial bi mu def assainissement ci fukki dëkk ci Sénégal ne nañ ci dugal Touba gën nga néew dinañ ci dugal juróom ñett milliards ta mëna yegg bu fukki milliards ak ñaar contrat boobu mooy wax xaatim nañ ko liggéey moo ci des ñu tàmbali ci wàllu courant bi ci màggal gii rek lay tudd Senelec def na ci ñaari milliards ak juróom-ñeenti téeméeri millions ci programme boo xam ne bii ñeenti la loolu lépp pour fexe ba courant bi ñuy am ñu am ko qualité bu gën liggéey yooyu yépp nag terewul ci wàllu courant ci wàllu ndox président joxe na ndigal ministre yi ñu dénk yoon yooyu ñu tàmbali saytu li ñu war a liggéey ba fi ñuy wax sancaan ak dëkk-dëkkaan yi wër Touba mën a jot ci ndox mën a jot ci courant sëriñ bi président bi fi ñëwee bërki démb waxtaan ak serigne Basiru Abdou Khadr ak ben taalibe bo xam bi dafa tambul won fi ben marché fi ñuy wax Ngiraaneen président wo ma jox ma ci ndigal ne ma liggéey ci képp ko ci wara a ak pour que marché bi taxaw marché bi bu yeggee dana mat juroom ben jooni place yo commerçant yi danañ ci mëna dem serigne bi serigne touba khadim rasoul waxna ci khasida bu al jazaa'u iqsaan lil xuddami fayub ñi may liggéeyal ku ma liggéeyal dara yàlla na nga ko jéggaleel ay bàkkaaram te dugalal ma ko aljanna loolu ci la président Macky Sall sax ba li mu yéene Touba ñàkk ko man rek moo ko koy teree def sëriñ bi président Macky jox na ma ndigal ñu tàmbali waxtaan ak ñépp ñi nga xam ne ñi dañoo séq ak ñoom langue politik bi ci ñuy saytu élection yi ñu génn tey waajal élection yi ñuy ñëw 2019 ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu ci ak déggoo am ci suñu biir bu ñu waxtaanee fas nañ ko yéene tàmbali ci fan yi di ñëw président Macky Sall mi ngi feddali bu baax kàddu yi mu fi waxoon bi mu ñëwee lu jiitu màggal gi di sàkku ngeen ñaanal ko ci barke bis bi ak darajey borom bis bi yàlla dolli ko moom ak gouvernement bépp xéewal ak man-man ba limu yéene defal askan wi mu matale ko te limu sëmb ci dëkk bi bu sell bi suñu borom agalé ko alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh. jeri jeufé señ touba